docteur Yankoba Seydi ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay soxna si. an mbégte àndaat ak yow ci euh, waxtaan wi euh, ñu koy euh, door nag ak la xew ca Mali suñu dëkkandoo yooyu nga xam ni ab coup d'état la ñuy dund talaata ba léegi ban jàngat nga def ci situation ba taxawaayu CEDEAO waaye itam taxawaayu président Macky Sall mi nga xam ne bëgg na xëy na ñu bàyyi yenn muy wéy di jàll ci Mali mi nga xam ni aussi client bu rëy la ci Sénégal bu ñuy wax wàllu exportation. waaw xam nga Mali nag dafa nekk suñu. mbokk mu jege. Mm. Euh, moo xam na li ñu boole moom euh, du rek euh, mbirum jënd ak jaay wante nag dafa am ay liens yoo xam ne ni histoire déjà bu ñu demee avant sax xam nga ni ñuy wax sax surtout fédération de Mali mais. suñu rapport yi dafa dafa dafa dafa gën a yàgg mm-hmm. bien avant que ñuy wax waxu ay fédération ba jamono yi mm-hmm. donc dañuy suñuy mbokk moo xam ne nii lu leen euh, lu leen dal dal na mu daanaka. Mhm. moo tax nag lépp lu fa xew moom euh, ñun war nañ ci bàyyi xel lool lool lool war nañ ko bàyyi xel déjà xool suñuy partenaires yi ñu ñu commercial Mali moo jiitu ci liste bi donc loolu mooy wane ne que Mali euh, lu fa xew xew na Sénégal mel na mhm. donc coup d'état bi nag li mu indi mooy coppite bi nga xam na ni daanaka askanu Mali. ku seetlu nag mu ngi ko doon mu ngi ko bëggoon ndax manifester yi nga xam ne amoon na euh, ci Bamako place de l'indépendance euh, te ñu ko dalal ñu ko organiser di waa M M5 ak yeneen euh, banqaas yeneen kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo seq mbir mm-hmm. ñoom ñu bëggoon benn moment mooy que finalement daal. na euh, njiitu njiitu réew ma dem parce que bëggatuñ ko donc euh, ñu manifester ba diggante bi am na moment boo xam ne ni bi mbir yi demee ba gën a tar nag CEDEAO daal di CEDEAO bi di bànqaasu réew Afrique soo jant yónnee ay ndaw euh, ñu dem pour waxtaan waxtaan nag ñi nga xam ne ñoo seq mbir mi ngir nañu mën a euh, am li nga xam ne moom mooy euh, solution wante loolu gis nañ ñu defe na li koy indi mooy CEDEAO ñu ñëpp lu ñu jàpp mooy ñoom euh, jàpp ni ñu ni ñu lecture ba nga xam noonu lañu ñu def situation Mali loolu dafa dafa juum nañu te ba ñu demee déjà yoon seen i maanaam ay président yi dem di seeti ñaari parti yi ñëpp xamoon nañ ne ñoom li leen gën a intéressé mooy ñu fexe ba kii nga xam ne mooy président ba ne mu bañ a démissionné comme ni ko manifestant yi waaye manifestant yi di di di mhm. léegi nag euh, diggante bi nag armée bi xam na ne jaxasoo am na ci réew mi déggoo mënta am euh, finalement daal ñoom ñu jël seen responsabilité li ñu def mooy ñu jël nguur gi léegi nag ñu gis ne CEDEAO ci wàllu woowu dañu jëm commencé génne ay sanctions ba daanaka dañu ni sax léegi euh, putschiste yi daal ñoom ñoom Mali sax dañ koy def euh, pratiquement boo xoolee su embargo réew yi nga xam ne ñoo ko sëkk muy Sénégal ak yeneen yeneen réew <laughs> Afrique sous-orientale ñoom ñëpp mm. tëj seen frontière mais si ci biir loolu nag na Macky Sall waxee ne nag Sénégal dina ci amal benn genre corridor humanitaire mm. mais ñun ñëpp xam nañ ne loolu langage diplomatique la. Hmm. Euh, Sénégal euh, ah, depuis déjà ci mbirum corona nga xam ne ne woon dañuy tëj frontières yi. Hmm. pour que dem dikk bi bañ a am ñëpp xamoon nañ ni euh, diggante Mali ak Sénégal trafic bi dafa continuer dafa dafa wéyoon dafa dafa dafa am. Hmm. donc couloir humanitaire bi. koo xoolee euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon aile dure bi ci CEDEAO bi ay ñoom surtout Alassane Ouattara mm. ak président yi Guinée ak yooyu ñooñu euh, seen situation dafa wuteeg Sénégal pour le moment ndax ñoom dañu xam ni euh, ñoom seen bopp itam seen réseau askan ñu ngi manifester contre mm-hmm. kii troisième mandat donc jàpp nañ ne bu jaxasoo boobu demee ba xëy na euh, bu ñu demee ba am benn junte militaire bi nekk au pouvoir au loolu mën naa indi mën na la jox ay idée ba loolu tam lu mel noonu am seen réew. Mm-hmm. donc mën nañu comprendre que ñooñu de oui dañuy tëj suñuy frontière tout de suite mm-hmm. euh, mais Sénégal loolu. ga arrangé wu ko moo tax nag Macky Sall wax waxu corridor humanitaire mais ñun ñëpp xam nañ ci loolu sa euh, dépasse bien. affaire corridor humanitaire donc loolu mooy wax ci donc euh, euh, c'est exactement la situation. d'accord alors ñu ñëw fii ci Sénégal euh, actualité bi daanaka dellusiwaat na ci mbirum élection ginnaaw bi ñu tàmbaliwaatee jalog bi toog nañu lu yàgg nag ndax mbas mi waaye ñu bari tey ñu ngi wax ne élection yi dañu ko war a dàq ndax yéen réew mi boobu gis-gis ngeen ci am. Euh, alors personnellement lii du ma wax euh, ndax réew mi am na porte parole on donc si ginnaaw <laughs> si place su porte parole waaye man lii ma wax ni euh, lii mooy man li muy jàpp mooy dàq dàq élection locale nag moom loolu moom kenn waru ko sax wax hmm. xëy na nag bu ñu ba situation mbas mi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la seen xel màcc ci wàllum Euh, virologie épidémiologie ñooñu dem defe na ah élection de mënuñu ko def à ce moment là dinañu xool laka la ñuy def mais bu dee ay dàq bi ñoo xam loo xam ne si politique lañ ko laal loolu benn benn kenn waru ko sax wax li tax ñu waruñu ko wax mooy élection maanaam mandat locales yi deux mille juillet deux mille dix neuf bii la jeex ça veut dire que depuis plus d'un an ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di euh, si bopp bokk moomee li nga xam ne ñoo fare ñoo nekk ci Sénégal ñooñu ñëpp kenn amu ci légitimité locale askan askan askan askan gox yi nga xam ne ñoo leen jox seen i bopp ñooñu mandat ba nga xam ne noonu lañ leen appaloon jeex na léegi moom bu fekkente ne nag yow liñ la may ki nga xam ne moo lay dénk dénk na la ci àpp ba nga xam ne moom lañ constitution bi tëral ba loolu dem ba jeex waaye yow ñu lay yokkal ba lu ëpp at ba loolu comme si loolu doyul ñu ne dañuy dàqaat encore loolu benn yoon loolu mun kenn loolu amul benn sens gis nañu réew yu nga xam ne ni mbas bi muy demee gën a tar la ñu organiser seen élection hmm. parce que élection euh, loolu mooy jox légitimité ñi nga xam ne ñoom doxal da ngay doxal surtout que doxalin bi boo xoolee doxalin bi c'est c'est catastrophique hmm. problème yi am si loca si localité yi ñi nga xam ne xam nañu déjà ne que ñun seen mandat jeex na bu yàgg waaye ñu leen ñu prolongé leen mais ñooñu dañuy profité parce que li ci ëpp si ñoom ay scandale yi dafa bëri bu ñu xam nañ ne ñu bëri xam nañ ne xëy na bu ñu demaatee si élection ñoom kenn falaat donc dañuy profité mbirum suuf ah yeneen scandale yu bëri yi nga xam ne ñoom daf leen arrangé li leen desee si as néew si si néew mais liñ ci mën a def ñu def ko si ñu bon bu ko defee bu leen ëllëgee bu leen jël bu leen ko jëlee ëllëg moom après c'est fini quoi. donc loolu. Mhm. je pense que waru d'ailleurs sur le plan central. Mhm. jafe-jafe bu am à l'échelle locale mën na dem ba affecter le le la gouvernance centrale. Mhm. donc ñoom il faut que ñu xalaat donc man dialogue bi je sais que euh, quelque part xam naa. Euh, ils se disent écoutez li xew Mali il faut pas que mu xew fii euh, donc euh, du coup peut-être ils se disent écoute nañu relancer dialogue bi parce que ñoom dialogue bi d' abord bi ko Macky Sall annoncé ba bala ma koy ñu koy organiser ñaata weer la biñ ko commencé bi ñu commencé def euh, ndaje yu njëkk ak ñu dem benn moment ñu arrêté lépp mais loolu mënuñ tëj lépp ci ndodd mbas nag yeneen mbir yi c'est pas mm. possible ci mbir ci ci jàll bi depuis bu yàgg d'accord waaw mais kenn warul mm. ndax euh, ko war a dicté d'accord alors ñu ñëw ci parti réew mi yaa ngi wax sànq ne mënoo wax ci turu parti bi effectivement parce que euh, dajewu leen wax ci mbir mi ñàkk daje googu euh, mën nañu jàpp ne ba léegi moo am ci réew mi est-ce que mën nga ñu wax dëgg-dëgg docteur Yankhoba Seydi lan mooy seen problème li tax parti bi mel ni lu dee dara doxatul waaw loolu loolu nag pour man jafe-jafe yi moom dafa nekk loo xam ne si suñu biir la nekk loolu euh, li ma leer mooy euh, euh, du yàgg wala dina dina dinañ ko dinañ ko saafara parce mm. que li nekkoon suñu force tamit mooy lépp li xam ne ni soxal na réew moo xam ci biir la ci biti ñu daje après ñu sottante xalaat ñu daal di bokk benn kàddu ñu ne lii lañ ci xalaat ñu génne bu amee loo xam loo tëb loo xam ne tamit soxla soxla na Sénégal ñu fësal ko ci wàllu proposition ñu ne ah de lii mooy suñu xalaat comme d'ailleurs loolu d'ailleurs moom mas a nekk taxawaayu suñu nit ñëpp xam nañ ne moom xalaat yu bëri rotal na ko pour Sénégal daanaka sax ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di gérer ñoom eh, lu si bëre da nga ko daan eh, saaga bàyyi xale yu ndaw di ko saaga mais bu yàggee bu ngoonee nag seen seen kilifa yi jël loolu nga xam moom la rotal comme proposition. d'accord léegi moom moom seen njiit fan la nekk ak ci lan la nekk. ah mi ngi fi mi ngi Sénégal. Hmm. mi ngi fi mi ngi Ndakaaru sax. pour pour mu gën a leer. pour liggéey liggéey pour Sénégal nag. ci lan lay liggéey précisément. li ñu liggéey ci ay ay ay xalaat ay idée ay ay doxalin yoo xam ne loolu la Sénégal soxla actuellement parce que jamono bu nekk ak li ñu war a tëral pour réew mi te gannaaw lii yëpp amoon na ay ay proposition yoo xam ne rotaloon na ko mais léegi fi mu toll am na yeneen liggéey yi nga xam ne ñu koy def parce que xam na ne toll nañu foo xam ne ni yeneen. yeneen anamu liggéey la ñu soxla ak ay xel ay idées yoo xam ne moom loolu moo ko intéressé moo tax mu am calendrier bu intense bi mu di ci liggéey ba léegi fi li ma leer mooy bis bu génnee nag euh, wane ko nit ñi dañuy jàpp ne dañuy xam ni li mu doon toog ak ñàkk génne wala ñàkk wax loolu liggéey bu bu am solo moo ko waral te loolu kenn waru ci am jàqare kon mën nañu xaar fi ak diir sa Seck ñëw ak ay saafara ci jafe-jafe yi Sénégalais yi di dund. bu mu la ah déggee ah, ah, ah euh, même nga xam ne ñoom ñooy wax naan bii dégguñu ko ci problème yi mais it ku déglu Idrissa Seck mais lépp pratiquement ci amul benn question bu bees boo xam ne même li ngi am ci fan yi te boo xam ne ne waxu ci wax ju leer. wax ju leer laa wax la hmm. am na ñoo xam ne seen wax leerul waaye moom lam ca wax yépp ci problème bu mu mën nekk en tout cas gisaguma question bu bees boo xam ne waxu ci ça veut dire que moom moom wax du wax sax déjà moom euh, mi ngi ci yeneen dimension di xalaat euh, pour Sénégal donc parce que loolu moo ko mas a ñor depuis très tôt il était très jeune bi mu duggee ci politique hmm. parce que teel na gëm boppam xam ni moom idée ya mu am ak ni mu Sénégal ba nga xam ne moom lay rêvé ak ak da muy rêvé te loolu du waxu politique kese loolu il faut mu réaliser ko euh, avec euh, des sénégalais yoo xam ne gëm nañ seen seen. am na ñuy wax ne nag noppeem gi euh, c'est relatif ak xëy na ay waxtaan yu dox diggante mag président Macky Sall. non non Idrissa soxlawul loolu. ay waxtaan ak ay Macky ak yooyu moom li am solo mooy li mu wax moom nee du musa def daara yegoo ci kaw. Sénégal te loolu je pense que loolu musul musul am ci Idrissa hmm. au contraire mënul sacrifier toute sa vie Idrissa moom lay wax boo ku def calcul bi chaque fois loolu lay wax ku lu ëpp quarante ans d'hostilité pratiquement léegi koo xam ne ni ci opposition bu ko neexee mu dugg boo ko du xaar si Macky Sall dafay koy def si Abdou Diouf waxuma la sax Abdoulaye Wade Abdou Diouf parce que foofu lañ ko commencé nañ ko bàyyil war dëgg ñëw parce que yow jeune nga am xal tu nanguwul parce que Sénégal moo ko ñoroon mu fexe ba Wade ñëw la même chose liggéey liggéey bu metti Sénégal ak ay Wade ak pouvoir jëlee ko fii mu wéyal liggéey bi bu bu ko neexoon la bu fekkee ne ay compromission defoon ko sax du xaar Ablaye Wade falu day xëdd Abdou Diouf bu jeexee Wade bu faloo bu ñëwaat comme ni ko nit ñi di defee Sénégalais yi politiciens bon yi fi nekk mais it bokkul ci ñooñu donc ku ko mel noonu bu toogee jamono yi loo xam ne ñëpp war nañoo xam ni Sénégal moo ko ñor parce que wanee na ko xam nga du c'est pas du wax bu ñoo tax Sénégal moo ma ñor dañ naan waxu mm. politicien bi mais parce que il a prouvé sur ces nombreuses années d'opposition yoo xam ne opposition bu gën a dure ah mm. ne wan gis gis na ko ba mu c'est-à-dire que def nañ ko lépp mais mi toog di di di muñ xam ne Sénégal jaral na ko donc Sénégalais yi war nañu xam loolu te liggéey ba mu nekk pour Sénégal la pour boppam sinon pare na ci bu yàgg. jeexal très rapidement ak euh, livre Thierno Alassane Sall mi nga xam nekkoon na ministre euh, yore wàllu pétrole ci Sénégal euh, li mu fi wax yépp daanaka jëm rek ci ni ñu yore alalu askan wi yow ban jàngat nga def ci loolu mu xibaar ci ci ci boobu. defe naa ne boobu livre bi moom dafay ñëw rek di gën Euh, di gën a jox nit ñi détail yenn détail yoo xam ne xamuñ ci woon ko ci woon waaye euh, muy xeetu scandale yi xam yooyu lay yëkkati ci mbir mi surtout ci wàllu pétrole ak gaz ak yeneen contrat yi moom defe naa ne sénégalais yëpp xamoon nañ ko li desoon kañ mooy ni comme ni nga ko waxee rek ñu xamee ko ci yenn yan détail ak yan anam la amee woon waaye euh, lii day wane ne que li nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp Sénégal banditisme ba nga xam ne moo fi nekk banditisme économique banditisme politico financier li fi nekk yoo xam ne dañu dul relu dul piller les ressources du Sénégal alors que ñoom ñoo dugal ci constitution que ni les ressources naturelles appartiennent au Sénégal te loolu dox d'ailleurs soxla ñu ko sox mais mm. faisant que constitution c'est ils ont jàpp nañ ne loolu mooy ma bi nga xam ne nit ñi dañuy gën a gis seen bopp ci li ñu gérer ressources mais c'est le contraire loolu mooy ndax nit ñi c'est des gens ñoo xam ne Sénégal ñoru leen seen bopp rek moo leen ñor looloo tax d'ailleurs boo xoolee li xew Mali Mali li ñu dénoncé yëpp daanaka moo ko xew Sénégal année famille bi famille président yi belle famille famille biologique ñoom ñooy gérer Sénégal mm. loolu gis nañ ko année année parti politique am ñoom actuellement li ñu bañ ñëpp avant Assis moo tax ma mere waa Assis ndax waa Assis rek ñoo nekk ci gouvernement mm. parti socialiste AFP tous les autres partis ñoom ñoo nekk au pouvoir de parti assises yi wax nañu ne déjà boo nekkee chef de parti boo demee ba nga àgg au pouvoir waruloo ko doon d'ailleurs bi ma doon wax boo gisee ñun suñu président en posture bi mu am day expérimenter déjà le fait mel ni ku bàyyi parti bi war ci dugg. Hmm. voilà du bàyyi voilà da bàyyi mais moom euh, expérience expérimentation en réalité te loolu tekkiwul ne bàyyi na parce que àggagul au pouvoir. Sénégal mais loolu lay préparé waaw c'est ça. d'accord leer na jërëjëf docteur Yankoba Seydi ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi fàtte ne yow yaa yor lépp luy relation internationale ci parti réew ma euh, waaye itam euh, yow la ñu dénk école du parti bu réew mi euh, Idrissa Seck di njiit li ñu lay gërëm amoon nañu mbégte bu rëy dalal la ci matinalu tey bi.